di Giro la moo di Giro. waaw Giro moo toog nële. Ah. Euh, moo nekk borom borom borom moom maa dem ba Maja na bu yàgg sax. ah ah Moussa borom nëbi mooy maa dem ba. waaw borom nëbi mooy soo <laughs> est-ce que xam nga ne bokkoon na élection 2000 yi. moom mi waaw bokkoon na ci élection présidentielle yi dem ba soog mii boobu boobu ci waa yàlla nattu woon ko mu bokkoon ci waa Axlu Zaro. Kéem wax waaye ak lu la war a laaw. bokkoon na mais mais bon bref sama xel sama xel day dem ci théâtre Sanex bi groupe électrogène bi Sanex da ko wér maa dem ba kon kii la loolu. maa dem ba loolu parce que boobu dafa am benn coupure bu fi amoon ñu ne Mademba Sock moo ko waraloon nag. Mhm. benn coupure générale la woon euh, ba ñu ba ñu tëjoon ko ci sax. Mm-hmm. waaw si la génnoon nag euh, am benn mer gu gu diis gu mu àndal. Mm-hmm. Euh, waral mu sóobu ci làngu politique waaye bu mu sóoboo génnaat na bu gaaw. donc yooyu yëpp ay <laughs> histoire la <laughs> yoo xamante ne amoon na fi ak ñi nga xamante ne ñooy changé maintenant léegi secteur privé bi. du ñàkk xam naa dinañ leen recevoir ñooñu. Mhm. mais ñii ma gis nii nii moom. ay ay syndicaliste lañ amaana nag dinañ amaana taxawaay ci secteur privé bi parce que nañ leen eh, ci lañ ci bokk. parce mhm. que mais secteur privé bi dëgg dëgg dëgg ñii tax ñu naan secteur privé. Mhm. mooy patronat bi je dire patronat bi je dire patronat voilà patronat j'y arrive mooy mot bi. patronat bi maa ngi xaar ñu recevoir ñooñu nag après ci la ñuy waxtaanal mooy ñi nga xam ne ñoo def su boobaa ñoom ñooy am seen mot à dire ci wàññi dund gi naka la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. yan solution la ñuy trouver euh, pour mbir mi gën a jàppandi naka la ñuy taxawee réew mi ñooñu ñoo ci gën a am seen moo à mm-hmm. dire ñi ils sont plus ci côté travailleurs yi ci euh, xool naka la ñuy def. Mm-hmm. Euh, ba travail nekk ci anam ñu gën a jàppandi parce que ñi première bi nga leen daan gis lu bëri. ñu ñëw président de la république def indi seen cahier de doléance ku nekk jël carte wax ñoom première main nga leen daan gis. Mhm. maintenant léegi nag ñi ngi xaar après espérant que ni euh, patronat bi dina leen recevoir. mais est-ce que décision yi yi ñu war a jëlee foofu noonu est-ce que yéexul li ci mel euh, lamp l'emploi des jeunes ak euh, cherté bi nga xam ne ñu ngi koy dund fii Sénégal. parce que yaakaaroon naa ni dès les premiers jours la ci président Diomaye di taxaw parce que comme ni ma koy waxee tous les jours Sénégal booy xool euh, quatre vingt cinq pour cent wala soixante dix pour cent yëpp ay góorgóorlu lañ mhm. dañuy xëy di wuti au jour le jour kon euh, tey waroon nañu weesu fi yaakaar naa ni kilo soble fi mu toll nii waroon naa fekk mu mu mu wàññeeku mais Amina loo bëgg waaw kilo soble seen ñaa la jar non non mais attends balaa <laughs> balaa yow Amina xanaa néeg sax bu ñu la ko joxee boo doon dee ab néeg hmm. xanaa doo ñëw néeg doondu néeg bi huit heures ñu ne la tabaxal néeg bi peintural néeg bi defar air plus un yëkkatil néeg bi la non yàkkamtewu ma sax de mais xam nga ak yooyu ba tax na dama naan est-ce que duñu ah. fàtte li nga xam ne mooy dund non duñu duñ duñ ko fàtte xam nga lu tax ma wax la loolu mm-hmm. état lu nekk dafa am kuñ ko jox am nañ ministère du commerce mm-hmm. moom moo yor loolu certainement mi ngi def liggéey na mu ko war a defee mais ñi nga xamante ne dañuy wax ci wàllum dundu beeg yooyu noonu mais bu ñu fàtte ne le Sénégal n'est pas n'est pas ci en en matière de d'alimentation de nourriture ak yu lépp dañ koy jéggaane ji. Mm-hmm. léegi loo xam ne da koy jéggaane ji sa dëkk. moo tax Macky Sall bi mu njëkk bi mu njëkkoon ñu bi wax dafa def benn politique boo xam ne dañuy am autosuffisance en riz. Mm-hmm. buñ ko amee su boobaa ceeb bi biñ daan importer muy jógee Thaïlande ak feneen ak feneen ak feneen dinañ ko wàññi ba bi fi nekk ñu mën a am maîtrise ci ci prix bi su ko defee dootu mën a grimpinti euh, du am benn choc boo xam ne bu bu dalee ci baril pétrole bi mu affecté ñu ak yu mm-hmm. mais léegi loolu amagul yow yaa ngi doog a ñëw si lan ngay mën a jouer fi ñu toll nii levier yi ngay mën a jouer mooy yi nga xamante ne mu ngi à disposition. nga mm-hmm. xool naka ngay mën a def ba subventionné ko benn. te loolu est-ce que subvention bi dina mën a wëy c'est à revoir beneen mbir bi nga fexe ba marchandise bi daal di jàppandi bu jàppandee bëri si dëkk bi su ko defee concurrence bi euh, daal di am lu mu jur prix daal di commencé wàcc ndànk-ndànk te yooyu yëpp buñ ci def bu nekk rek mënoo ko def benn jour wala ñaari jour wala ñetti jour. Mm-hmm. loo xamante ne la processus lay doon liggéey lay doon ak ñi nga xamante ne ñoom nga ko seqal mooy consommateurs yi mooy patronat bi mooy ñi nga xamante ne mooy ñooy jaaykat yi donc ñoom ñëpp foo nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. Mhm. il faut nga xool lii nii ak nii ak nii nan naka lañ koy defee lan moo possible lan moo mën a nekk loo ci gisoon président Macky Sall bi muy doog a ñëw genre mesure la jëloon ñëw rek ne dañu wàccee mbir mi ñu wàññi wàññi wàññi bi muy demaat fu mbir mi jëm. bi muy dem fii lañ ko doon woo tegal ko ne ko lii bi ngay ñëw fi nga ko fekkoon bi ngay dem léegi yóbbu nga ko fii mhm. lii bi ngay ñëw fi nga ko fekkoon bi ngay dem doublé waat na ko wala triplé na ko loolu lan moo ko fi jar c'est parce que ay mesures la yoo xamante ne à un moment donné il fallait le prendre boo ko jëlee nag léegi après ma calmer nit ñi bu ñu calmé ba toog xaw a fàtte rek mu multiplier prix bi daal di koy génnewaat mu ñëw seen kaw kenn ñoom li ñu leen sas mooy ay solution ak ay mesures yoo xamante ne askan wi dañ ci gis seen bopp. Mhm. mu doon wàññeeku boo xamante ne doo ko wàññi janvier février mars avril mais ñu dem ba décembre ki nga def un an rek nga nga nga yëkkatuwaat prix fan kenn soxlawul loolu. Mhm. te loolu nag fi ñu toll nii pour man euh, bu ñu falee ay njiitu réew yu bees njiitu réew bu bees. Mhm. dafa am loo xamante ne man mun ma koo comprendre munuñu am njiitu réew yu bees boo xamante ne. weeram sax matagul ci bopp réew mi suba la fi am weer ñenn ñi taxaw naa lu tax wàññeekuñ li man man man mënu ko comprendre quoi yow xanaa a bu ñu de quartier. sonn rek chef de quartier bu ñu la ko defee sax mu dem ba jël la va-vite yàkkamti ko après ay regret di ci am. Mm-hmm. te pourtant bu toogoon tuuti toog jàngat def ay concertation woo kii woo ñële woo ñii def nii def nii man nag dama gëm ne Sénégal ki koy defar tuuti. foog nga gumba tëx lu doo déglu kenn. Mm-hmm. non su ma nee doo déglu kenn cela ne pas dire que ne doo déglu askan wi moo doo déglu ñi nga xamante ne tey jii ñenn ñi ñoo nekk ci suuf di la di di la accélérer loolu di la dugal loo xamante ne yow waroo see jaar. Mm-hmm. yow da ngay xam li nga xam am sa programme xam ne fii su ma fa yeggee ak ñoom mooy fi baax nga dérouler jëm foofu mais soo leen toppee. benn booy bind fi si Twitter noo wàññeegul kii ñëw dawaat fële Facebook kañ nañ ñoo ñu diggoon wàññi di nga def 3 mois kenn ñëw ñoo ñu diggoon màndi wàññi nga def 6 euh, yow nekk ci li ngay nekk di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey del togg rek yow mais bés boo yàkkee ñoom ñu lekk ba suur kontaan te loolu moo ëpp loolu moo ëpp solo. Mhm. tey jii président Macky Sall ba mu ne woon dafay wàññi màññi wàññi mandaawam euh, def ko jëlee ko sept ans ko cinq ans mais bi mu ko defee ci saasi ne dem na conseil conseil jox leen avis bi ne ko mënoo koo wàññi mais ñu bëri dañ ne noo kii ñu ngi koy xaar bu demee élection rek ñàkk. waaw mhm. parce que nangam ak nangam mu demee élection daa gañewaat premier tour la jàllee. Mhm. xam nga lu tax loolu. mais li mu teg ci table bi la li mu leen proposé la parce que ñoom dañu gëm ne euh, sénégalais dafa koo xam ne dafa ñenn si ñoom dañu gëm ne sénégalais dafa gaaw fàtte. Mm-hmm. waaw ñoom jàpp ne sénégalais dafa gaaw a fàtte boo boo bëggee mu fàtte dara rek indil ko ne lu ëpp solo nekkoon ci kanam mu fàtte li nga ko defoon démb. Mm-hmm. waaw yow tooñ ko tooñ bi metti waaye indil ko lu ëpp solo tooñ bi rek mu fàtte la tooñ bi nga ko tooñoon. Mm-hmm. léegi nag boo nekkee ci situation bu mel noonu. nga xam sa askan bul topp benn benn wala ñaar ñaar yi nga xamante ne ñooy fëgg sa buntu naa la non non def defal nii yéex nga def non non ñoom la ñu fal. Mhm. léegi ñoom ñu ñu fal ñoom ñooy rendre compte actuellement dafa am ñoo xamante ne ñoom ministère bi ñu leen dénkoon mooy ministère de la parole et des mhm. actuellement dafa ñeneen ñu leen fa wut léegi ñoom seen role mooy. buñ leen buñ buñ leen fekk si ministère de parole et des polémiques boobu noonu parce que ministère de parole ñoom xam nga ñoo ko moom fi ñu toll nii ñoom Abdou ko moom ñoom ñoom ñoom. ñoom ak Aji Mbergane kan ñoom Aji Mbergane. non bi maire bi maire na de. waaw ñoo ñoo ñoo ñoom <laughs> maire moom. <laughs> maire bi maire bi tey déglu nga ko tey ci suba. non déglu nga ko tey ci suba moom la ñu invité woon RFM matin. RFM matin bi sance na. non mais il faut ñu il faut que ñu def dànk nag bu bu defee noonu rythme bi day bëri. parce que oppose bi am na pour juróomi at lu mu gàtt gàtt. Mhm. kon il faut mu wàññi dangar bi rek def ndànk xam ne opposition bi dafa laaj énergie. Mhm. te énergie boobu bu joxee énergie bi yëpp a wàcc. Mhm. waaw te te loolu kenn soxloo ko énergie bi dinañ ko soxla si kanam tuuti. waaw bu soxlee opposition bu taxaw bu dëgër mais bu commencé bëgg énergie bi yëpp mu yemale ko ci. Euh, <laughs> ci ci ci ci premier mois ci premier mois day teel a wàcc te bu wàccee amaana amaana doon li nga xamante ne. Euh, moo koy amal njëriñ. ah tamit de dëgg la waaye Moustapha suba conseil des ministres am na de ah dinaa dégg sa wutoon. <laughs> yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi séntu nomination ba tey. ah maa ngi maa yenn poste yi moom maa ngi fay xaar ay ay tête yu bees comme ni ma ko doon xaaree bee paase. waaw man damaa bokk si ñi nga xam ne gëm naa ne nag war nañu procéder à des nomination Mhm. man dama gëm loolu parce que am na ñoo xamante nag sénégalais wax dëgg yàlla ñi yeewu di dégg naa ñooy seen ay directeur ba léegi wax dëgg yàlla sénégalais bëgguñu ko parce que bañ leen di changer dañuy symboliser comportement ak nekkinu ñu fi nekkoon mhm. ba tey jii bu ñu leen di gis ci télé bi damaa gis par exemple docteur Abdourahmane Diouf dem di def ci yenn direction nga gis ñoo xamante ne directeur yi toog yi ko wër yëpp ay directeur yu Macky Sall ay que dina am sax là-dessus déjà Mm-hmm. parce que temps bi ñuy perdre mooy temps bi nga xamante ne moom la amoon pour teg seen équipe liggéey liggéey bi mu avancé nga dem rapidement mu doon fast track mais su fekkente ne jël seen temps si nomination bi ñoom ñu gën faa toog gën a def nii bon après mën na mën na accuser du retard par rapport ak rapidité bi nga xamante ne bëggoon nga ko bëggoon nga ko ñoom nag ñoo xam